mu ne ko lu xew mu ne ko sama borom nee na nga ñëw wuy si ko mu ne ma lu may doyee mu ne nee na nga ñëw ci guddi gi dana tere teraanga joo xam ni ma su koo teral kenn koo xam ni moo la jiitu du ko teral kenn koo xam ni moo la mujj sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ma pare jibril mikail asrafil ak asrail ak juróom-ñaar fukk junni malayka jibril indi alburaax na ca kanam mikail ca ndeejoor asrafil ca càmmoñ asrail ca gannaaw ak juróom-ñaar fukk junni malayka sallallahu alayhi wa sallam war alburaax bu ñu jógee fu ñu jaar baytu laxam fu ñu ca teg madyana fu ñu fa teg baytul maqdis moo tax muy nag wal mawaaxidu xamsatu wa kaana baytu umuhaani min al xurum wal xurumu kulluhu masjidun baytu umuhaani dafa bokkoon ci xurumu kaaba ga te xurum yépp dañ ko boole ci comme jàkka ji rek wal mawaaxidu xamsatu lati waqataha nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ayyanaa lil ihraami fanaaun lil xarami wa fanaa al masjid al xaraam wa fanaa al bayti sharafa la taala fal baytu isharatun ila daati ilahiya wa masjidu xaraam ila sifati wal xurumu ila afaal baytul xaraam jëmmu baytu ba jëmmu yàlla la taxawe masjidu xaraam melo yàlla la taxawe xurum ba jëfi yàlla la taxawe rinaan rinaan googu nag wa daaka fi yaqadin demal ma dem waay وذاك في يحظ أسر المنام جليل وهكذا ذكر الشعران لا تغني رفيقه الروح في استفتاح أهل سمل ديبان واستبشروا من قادم قبل وذاك غوغر ريانك دريانو نمنتو دريانو جنت في يحظ أجي نكلك نب نبكت أغيرمم أجمم وجبرمم xaaji Malik nee na nag asaral manaami rañaanu nelaw ga jëlin aji feeñ la te jëlin la nag déggal Maodo mu ne asaral manaami rañaan la ga mu tëdd di rañaan di gént jëlin aji feeñ la ndax bu xëyee nettali ko te jëlin rekk la itam lu jëlin lamara fanweer la jiin jett la kon fanweeri rañaan ak ñett Muhammad gént na ko di ko rañaan ba kib jóg ji nag waaw xaaji Malik nee na wa zakara tudd na Sha'raani limaamu Sha'raani haakada nii na ko xam ne alaaji Malik laa taximi bul sol nag ci lu la wóorul laa taximi ay laa taraw ak xayri yaqin nga ne ko moo sidi xaaji Malik sallallahu alayhi wa sallam ba muy riñaan mokk na ànd mu ne rafiquhu ruuxu fi istiftaahi ahli samal diibaana wastabsharoo min qaadimin qadibi rafiqoo àndaaleem ba arruuxu mooy jibril fi stiftaaxi ahli sama diibaana déggal Maodo fi stiftaaxi ahli sama diibaana masal mu la fail jégg na sama fool ci sàkku dur ñu asamaan al diibaana bunt ya mu ne wastasharoo sàkkoo nañu bég ñoom ñëpp min qaadimin ci aji ñibbisi xadimi ku daji jiitu ñu ni waaw sallallahu alayhi wa sallam rañaan waxtu rañaan wa jëm ci yàlla ak waxtu nekkam ci suuf ak bi mu faatoo lu leen teq la ana xaqatu muhammadiya zuhurun fi kulli aalamin falyada zuhuru sallallahu alayhi wa sallam fi aalim al ajsaami ka zuhurihi fi aalim al arwaax ndax li an aalam al ajsaami laa yasau ma yasau aalam al arwaax ولذا ظهوره في عالم الأرواح كظهوره في عالم المعنى نقل أن عالم المعنى ألطف من عالم الأرواح وأوسع ولذا ظهوره في الأرض كظهوره في السماء ولذا ظهوره في السماء كظهوره عن يمين العرش ولذا ظهوره عن يمين العرش هذا كظهوره عند الله تعالى حيث لا عين حيث لا عين ولا كيف نحو ولا عين ولا كيف له هو رب الكيف والكيف يحول هو فوق الفوق لا فوق له هو في كل نواحي لا يزول جل ذاتا وصفات وسما وتعالى قدر عما تقول وأخذ ذلك الذي أراه على جسده الشريف لا يخلو منه زمان ولا مكان ولا محل ولا عرش ولا كرسي ولا لوح ولا قلم ولا بر ولا بهر ولا سهل ولا وعر ولا برزق ولا قبر صلى الله عليه وسلم yaramam wa ak melo wa jamonoog barabak arasak kursiyoog alluwajaak xalimaak jéeréeg géejeeg cekkak barsakak bàmmeel ak lépp la Muhammad yamal sallallahu taala alayhi wa sallam moo tax Sidi Xaaji Malik ni bu mu ñëwee nag ñoo baytul maqdis nag jibril dikk nag fa salla bihim rakatayni wa kaana xalfahu zahrahu ibrahima wa an yaminihi ismaila wa an yasaarihi isaaqa alayhi salaam wa kaanu sabata suhufin salaasatun min anbiyaai wal mursalin wa arbaatun min saa'iri al anbiyaai kama qaala xaaji malik wa ahlul ulwi wa rusalaai turran يؤمهم إمامة خير الدون هو الخطب الإمام وذو اقتداء مكانة المكانة دون الدون ودون البدر دون الحق جمع تعالى دون انتك وأهل العلوي وفعل الأول رسل يا وآل الأول والرسل موضل وآل الأول والرسل موضل وآل الأول والرسل موضل وآل الأول والرسل موضل يا أم الإمام موضل ودون الباب دون موضع جميع الرسالة مدو موضع جميع الرسالة مدو يا أهل الأول والرسل ترى يا أم الإمامة خير دنيا ah Sidi Xaaji Malik yàlla nañu ko yàlla fayal moo wax loolu ci miimi ya waxaat lii ci nuuni ya muy baxru waafi xaaji Malik nee na wa ahlul ulwi wa rusalaa'i turran يؤمهما إمامة خير دوني هو الختم الإمام وذو اقتداء مكانته المكانة دون دوني ودون البدر دون الله حقا جميع ورث تعلم دون حق واي ديك المولى واي كي ماي واجي واي كي مانا جانغ واي كي خم يفي واي كي ماي مبرمي واي كي واجي واي واي وخلين كي واجي واي كمان ندف benn ñaar ñett ñeent juróom juróomi dooni juróomu dooni xaaji ma rënk ko ci ñetti béy te benn doonu bokk sa borom loo dooni doonee waaye déggal waay ma dema juróomi dooni moo du rënk ko ci ñetti bayit te benn dooni amul la sa borom la mu doonee Maodo nee na wa ahlul ulwi ñooñ kaw wa rusalaa yi ak yonent yi turan boole seen kaw ak suuf laa wax ya ummuhum jiite na leen imaamata xëyru dooni imaam moo xam ni kenn xeebu ko tamay Muhammad xayru dooni du mu lu ñu xeeb boobu dooni xeeb lay firi alaaji Maalik kokkana xamulu ki ngay wax mu ni huwa moom alxatmu moom mottali yonent ya mooy kan limaamu kookaay njiit wa duqtidaay kooka la ñu roy makaanatu hoo darajay Muhammad makaanatu daraja la yoo xam ni doona dooni moo nekk moo nekk ci kaw daraja ñëpp déggal dooni doona dooni moo nekk ci kaw daraja yëpp waaye boobu garaawul waa jéemoo garaaw boo doonal bëdd doonallaahi xaqan jëmi urusli taala mu doon a xiini ngeen xam ne Maodo lépp la ma ne lépp la ma ne fépp la féppe waaye wuy leen ma waay dama ne Maodo lépp la ma ne waay
lépp la ma ne waay
fépp la féppe wa doonal bëdri doonallaahi xaqan jëmi urusli taala mu doon a xiini mu dema nga ni wa jamia rusuli mbooleem yonent yi yàlla bind alfukk ak din téeméeri junni yonent ak ñaar fukk ak ñeent doonal badri yéeg sañu muhammad doonal ay fa yàlla déggal dama ni ma waxaat ko bu teey ngeen fenq ko bu teey ëllëg fa nga ko waxee ku wax ngeen dóor yàlla maa ko wax dama ni dama ni maam nee na wa doonal bëdri doonal laay xaqan jëmio rusuli taala mu doon a xiin ma firi nag ma ni wa jëmio rusuli da nga koy xaddam da nga ci bayit bu mujj ba genn wàllu bayit bu mujj ba nga ni wa jëmio rusuli mbooleem yonent yépp ñu yàlla yónneeg ñu mu yónniwul muy alfuq ak din téeméeri junni yonent ak ñaar fukk ak ñeent mu yónni ca Muhammadu ñaar fukki junni yonent ak ñeent alfuqa ka din ñaar fukki yonent yooyu le ak ñeent yëpp ñi yàlla yónni ñi mu yónniwul la tenq ci nag Muhammadu muy ñi mu yónni maa ko wax ma dema muhammadu boo ko siifaree siifaru hind mooy ñi yàlla yónni ñetti téeméer ak fukk ak ñett muhammadun nga ni miimun mii miimu njëkk ma nga ni xaaun miimu ñu sàdd ma ñaari miim la nga ni ñeen ñaari miim ni miimun miimun xaaun daalun miimun miimun miimun xaawun daalun boo ko calculé chiffre hind ñetti téeméer la ak fanweer ak ñetti ñun ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent miim mu jëkk ñeen fukk mais miim ñeen fukk yaa du fukk mu juróom fukk nga ne ci miimun mu juróom fukk ñaari juróom fukk ñaata la nga ne ci miimun mu juróom fukk mu téeméer juróom fukk nga ne daalun la mara lan la du fanweer deel ñaata la du ñeen liif ñaata la benn ah nga ne xaa un tikkant lan la du juróom-ñett xamsa lan la liif ñu lan la booleel ñetti téeméer ak fukk ak ñeent ñoom la yàlla yónni waaw boo ko calculé ñetti téeméer la ak fukk yonent ak ñeent ñooñu la Seydi Hadji Malick ni Maodo nee na wa jamiil rusuli mboolem yonent yi yàlla yónni téeméer junni yonent ak ñaar fukk ak ñeent dooleel badri yées nañu Muhammad dooleel laay fa yàlla xaqan ci dëgg ñun ñëpp Muhammad dina ëpp daraja Alaaji Malick nee na lii ma la wax ni mboolem yonent yi yées nañ ci yàlla ci Muhammad ñi mu ëpp daraja te alamu da nga xam ko doon a xii ni gannaaw boo dee ci ngay xam loolu Siraaji Malik nee na boo faatoo ci ngay xam Muhammad puwaaram ci nga xam ni li mu ëpp daraja yonent yi mooy lan bu jeeyamati bi jahannam foofa rek doy na bu yàlla àtte jaam yi wal malaku safan safan nit ñi nekk kuréel malaaka yi jinne yi wër leen ilaha illallah malaaka yi wëraat leen wëraat leen wëraat leen pour kenn bañ a mën a facc wujjiya yawma din bi jahannam foofee safara dafa yàkkam ci yëf yi ndax bëgg a duma gaa yi rek malaayika yi ko téye juróom-ñaar fukki junni not kenn ku ne moom lay téye safara mu jëkk dikk rëcc da ci de jëm si ci pang mi ñëpp xoolante tiit ku ne xool sa morom yonent yi ñëpp jaaxle Muhammad mu naan ñëpp kër jóg ak leer moo jóge ci jëba topp safara safara yi dellu di dellu ba fa mu ne fa mu ne woon yàlla àggal la muy def kooku mooy waaj a waaj wal mu taa majdan wa faxran wa suudadan wal murtaja yawma yasibu nawaasiya waaw Xaaji Mansuur nee na huwa al muntaha majdan wa faxran wa suudadan kooku daal mooy muntaha tedd nga yëpp ci Muhammad la yem
huwa al muntaha majdan wa faxran bu dee puukare ci la yem wa suudadan bu dee càng fa la yem huwa al murtaja yawma yasibu ak nawaasiya bi nga xam ni safaraan yi bëri bëri ñu di ko xëcc muy lànk bëgg a fekk gaañ ci mbir ma sallallahu alayhi wa sallam a koy fekk Xaaji Mansuur nee na huwa dawxatu al uzma yusallu bi kooku mooy garab dillihi gu sax gi nga xam ne kanam la ñëpp di xeeraloo هو المدوم هو الدوحة العظمى يظل بذلي يمن بلا من وينفي ci la ñuy المعاصي xéewloo te du ñaax mukk moom Muhammad فأكرم من أطرى به الله ليلة kooku la yàlla rañaana ci génn guddi mu ne lay la tan dëggal lay la tan
حاج منصور نين فأكرم
kaw kedd nga
بمن أطرى به الله ki ليلة nga xam ne yàlla moo ko rañaana ci génn guddi lay la tan
منصور مالك ستر نين فأكرم بمن أطرى به الله ليلة cam lay la tan waxul lay lan de lay la tan la wax lu tax rañaan nga moom génn guddi rek la amul ñaar amul ñeent moo tax mu ne lay la tan
فأكرم بمن أطرى به الله ليلة dafa wute asaabihi laylan laylan da wax yadaan la laylatan ismu jins la di lenn rek mu ne layla tan kii laylan saa waay loo teg ma dam ma dam waay ah xam naa ne daal tey jii waruma woon a girib rek tey jii waruma woon a girib rek xam
حاج منصور نعيم من أسراب الله ليلة بيخترق السبع الطباق العوالية ci guddi googu nag ci la xotti asamaan yi juróom ñaar
ومن قاب قوسين منير لربه xala xotti rek janoo yàlla nga mag
دنا فتدلي ثم حاز المعالية waaw mu jege ko lool topp jagañal ñu ni ko ut nu حاج منصور نعيم ولم يدن دان amul ko ko mën a dee ko moom في البرية كلها ñu nekk fa mu la yëpp yàlla rek du nu Muhammad war- rek ma sa jege ndax euh, Moussa sax suuf la ko fekk suuf la ko fekk ci jabalu toor lu ko dama laa bëgg a gis mu ne ko doom a gis fii dama ni bàyyi leen seen font yi bàyyi leen caaxaan yi yonent yàlla Moussa laa wax jabalu tuur jabalu tuur ba ma ànd ak jabaram muy doomu Shuayb mi nu jot mu ñepp ñeppal mu liw di wuti safara mu seen ak leer dafa ni safara la ba mu ñëwee ca leer ga ñu ne ko faxlaan na alayka innaka min ba'di muqaddim suwe su ma see dàll ci këlu bi soli dàll
مولى سمينة mu ne nag innani ana Allah am lu ko wax ci biir leer ga ni ko innani ana Allah man a yàlla mu ne rabbi arini anduru zaataka ci ma ne ma ne kooka laa bëgg a gis
ومن قاب قوسين المنير لربي دنا فتدلي ثم حاز المعاليا ولم يدن دان في البرية كلها دنوك إذ خوطبت وحدك خاليا buñ ko wax yaa xayra bariyati udunu yaa ahmad udunu yaa muhammad udunu fa adnaani rabbi hatta kuntu kama xala suma dannaa fa tadallee fa kaana xaaba qawsayni aw adnaa sama loo teg ولم يدن دان في البرية كلها دنوك إذ خوطبت وحدك خاليا منصور نينا ويدعو إلى الله المعاشر رحمة ana la ma demee wax yàlla yéen ma ne mbindee fi rek
ويأمر بالمعروف ينهى المناهيا waaye am waay am am waay jox ko waay waay jox leen ko waay حاج منصور لنا ويدعو إلى الله المعاشر رحمة ويأمر بالمعروف ينهى المناهيا بتحقيقه صديقنا رسالة بتكذيبه نال اللجوج المخازيا فلله ما أبدى ولله ما اختفى من المعجزات الغر التعل الدراريا ستر لنا لهيبتك الأشجار جاءت مجيبة ورمي الحفار الجيش أصبح نافيا نبي له جم الفضائل ديدنا فواضله تزري الغيوث الوهامية دفلني والمصطفى المختار بدءا ومختما به ختم الله رسالة هادية والمصطفى المختار بدءا ومختما به فتح الله الكنوز البوادية والمصطفى المختار بدءا ومختما به ختم الله الرسالة هادية فاكرم من أسرى به الله ليلة بأخترق الصبح الطباق العوالية ومن قاب قوسين منير لربي دنا فتدلى ثم حاط المالية الحاج ابن سمال النينا أكرم بمن على البراق قد سرى من مكة ليلا إلى رب الورى nga ni لم lan يلق في سفره يعني لم يلق له وقت.
البشر loo ma wax nga ni loo ma wax nga ni أكرم kaatewu teeb la nga بمن على البراق bi man ci nga xam ne saraar ñaan na alal buraaxi dëggal bu gisee góor gi ne alal buraaxi saraa
ah si
teexul saraa alal buraaxi
xam Abdoul Aziz da ko xamatul lu muy wax.
لم يلق من سفري خير البشر
boo gisee mu ne alal buraaxi saraa bu doon saraa alal buraaxi ñu xam ne war na al buraax war na leneen nit waaye bu ne alal buraaxi saraa ñu xam ne al buraax dong la war futti yàlla du leneen moo tax mu gisal jaar dégg ma juróor su koy ni fil ja taxis la yaaka yoo dong nga xamante la ñuy jaam wa yaaka yoo dong na say la ñuy jumandikoo ah waaye loo teg maa ngi dem waaye oh oh gari lan أكرم بمن أحب ذو القهر
ma ne sëriñ bi nag soxna umu ko dafa beral loxo sëriñ Abdou tey nag xaw mu ngi xaar gàmmu soxna umu nag waaw.
waaw sëriñ Maodo day أكرم بمن قد خلقت سبع الطباق ma ne sëñ Maodo day dam na ma waaye bëgg ma boole ma ak jigéenam bi sama jigéen nee na ma dangaa beral Abdou Aziz loxo waaw soxna mu xayri nag waaye si Xaaji Malik soxna mu xayri feem yama taj feem yama laq ba keroogee ngeen xam continuer way الحاج الرئيس مالك نانا أكرم بمن قد خلقت سبع الطباق waaw waaw له احتراما راكبا على البراق أكرم بمن قد خلق خلق سبع الطباق له احتراما راكبا على البراق waaw nee na ba mu yegsee foofu nag dafa am ku ko wax mu bëtal sama juróom-ñaar dem ba raf-raf ma Muhammad de ba sorifu laxlaam waaw bi mu waree alburaax ñëw baytul maqdis téeméeri junni ak ñaar fukk ak ñeent yàlla yëpp mu dekkal leen aadama taxaw na le ibrahima taxaw nee noox taxaw nee di téeru muhammad jibril jékki-jékki ni kul bét nu suufoo fa suufoo fa ba gis ñu maan do xaañ looloo tax ba jibril dikk ànd ak muhammad ca pantre ba la jaar su ko dugg ci jàkka ji moo tax ilimaanu jumaa du dugg mukk ci bunt bu mag ba dugg ci jumaa ji loolu la ñu roy ba tey
loolooy cosaan la.
loolu la ilimaanu jumaa ñu di ko nekk ci jumaa mu war a xutba ñi nga xaas dem ci bunt bu mag ba ñoo xam ñoo xam doo ko dégg day jékki-jékki ñu tëll ci bunt soosu rek ba jibril ñëwee ànd ak muhammad yoon ci yëpp sàppe aadama taxu di ko teeru ak yaxya ak noox jibril dafa ni suufa fa suufa fa dafa leen sàppe yi muhammad ni tël sang bu tedd bi mooy waaja waay waaye kii mooy waaja cee jara way cee jara tàntal
صلاتك صلوا ah kay كلهم مقتد وأنت الإمام nga ni وختمت لصلاتك صلوا كلهم مقتد وأنت الإمام وتقدمت لصلاتك صلوا كلهم مقتد وأنت الإمام وتقدمت لصلاة فصلوا كلهم مقتد وأنت الإمام waaw ليلة الإسراء كل سماء سجد الكل إذا أوكى وقام ليلة الإسراء كل سماء سجد الكل إذا أوكى وقام وتقدمت للصلاة فصلوا كلهم مقتد وأنت الإمام وتقدمت للصلاة فصلوا كلهم مقتد وأنت الإمام waaw kooku baxaru xafif la ibnu saaya ko wax ci muhammad wa taqaddamta jiitu nga yow muhammad li salaati jëm ci julli fa sallo ñu julli ànd ak yow kulluhum képp kenn ci yoon yi teewoon keroog muqtadin aj roy la muhammad wa anta yow muhammad imaamun yaa imaam ma ba ñu jiitee ñaari rakka nag fu mu yaal buraax fu mu yaal buraax ba mu yëgee ñaari rakka ba génn saxratu bayti maqdis ca la yeewal buraax doj war nañu yeewee doj ciw fas wala li ma kéemaan bi waay sallallahu alayhi wa sallam dafa làmb loxo bi rek mu mel ni mburu topp ko nooy nepp moom doj wi mu yeew ca alburaax muhammad ni bërëb dojoo topp ko muhammad ni ko nii ba demee ba tey dojoo laalu kaw laalu suuf maa nga maa maa nga ba taxaw dafa ni nii doj wa rek mu nooy nepp mu yeew ca alburaax moom muhammad dojoo di bëri bëgg a topp muhammad mu ni ko nii ba tey dojoo a nga fa mu bëgg asamaan li juróom-ñaar maa la ko wax dara jàpp ko mu bëgg asamaan li juróom-ñaar ba raf-raf ba sërifu laxlaam écrivain yi fa ñu ne mu dégg ku naan ci wàllu yàlla udlu ya xayr albariya udnu ya ahmad udnu ya muhammad moo tax wax ko yaa achir woo ko yaa aqib nga xam ni kon muhammad ak ahmad ñoo gën a siiw ci turi muhammad ndax abdul muttalib ba mu tudd muhammad ni muhammad tub sa nopp ba dañ ko li ma sammayta ibnaka muhammad laysa min asmaai abaika wala asmaai ajalika fa qaala la yakunu mahmudan bayna samai wal ard lu tax xale bi judd nga ni muhammad taamoo ndey ju ko tudd amoo maam bu ko tudd amoo nijaay ji ko tudd mu ne waa asamaan dañ koo gërëm waa suuf gërëm ko yàlla fekk ba ci ngërëm la moo tax ma ne Muhammad ba mu dee asamaan juróom-ñaar ba raf-raf ba sarifal axlaam Muhammad bëgg summi dàllam yàlla ni ko xuusaloo tey